alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala mawlana rasulillah wa ala alihi qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki soppe yi maa ngi leen di nuyu di ziyaara ñëpp kenn ku nekk ci jëmmam ak turam di wax darsu bi nga xam ne ñu ngi koy siq ak ilbaas an faydatil xadmi abil abbas yow mi ma topp maa ngi woon ci tarjama Seydi Ali Cissé ci Maulana Cheikh Ibrahim maa ngi woon ci douzième page page twelve yow mi ma topp da nga gis ne boo toppee page twelve boobu ci ñeenteeli bind ba wala juróom ña nga emoon ci Seydi Ali fi mu wax ne wala hu ñeexal na baay fadailun kathira ay ngëneel yu bari wa mazaya jamma ak ay may yu bari léegi nag ñu war a dalee tey wa amma mafaaxiruhu ndaal ay puukareem moom Mawlaana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu li nga xam ne moom lay puukare woo dégg nga ko di ko wane ci biti te yëpp ci diine rek lay lay doon yi moom Cheikh Ibrahima li muy puukare woo du col gu rafet dégg nga ko du taar du mbooloo du oto bu rafet du donte ni yëpp am na ko waaye li muy puukare woo mooy xol yi muy jël di sol yàlla ndax waxoon na ne bu ma yàlla joxoon benn karaama ni ma koy defee mooy du soppandi jaam yàlla yi ñuy xaw ci yoon di jub radiyallahu anhu mu ne wa kasratu nafaihi ak bëri njëriñam li xaliqati rabbihi ci mbindeefi boromam dégg nga ku bëri njëriñ la ci mbindeefi yàlla yi loolu moom defe naa amul commentaire bàyyi ko am njëriñ la ci mbindeefi yàlla yi loolu amul commentaire di ndax ki ëpp njëriñ ci dégg nga ko yàlla mooy ki gën a mën a bëri njëriñ ci mbindeefi yàlla yi dégg nga loolu la yonentu wax sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ibrahima la wax ndax mas ngaa gis koo xam ne moom a gën a mën a yërëm mbindeef yàlla yi dégg nga Cheikh Ibrahima la wax dooma am naflaay mukk duma ko am féeg nitang ci suuf di mooy yàlla fala anaalu raxatan fi lqalbi wa fi lbasitati man yuaasi rabbi kooku kay wax dëgg yàlla kenn gënu koo yërëm mbindeef yàlla yi dégg nga taw na ne euh, laa tadurranna musliman walaw zaharat durrun ala yadayhi daban faxtafir xam nga fële jullit la wax ne bu ko lor xolo beneen ba bi lan la la wax fa inna dal xalqa ibadallahi falaa tadur axi ibadallahi mbindee fii ay jaami yàlla lañ yow sama mbokk mi bu lor jaami yàlla yi waay booy jéem a lor benn jaamu yàlla ci yëg-yëgam ngay dugal ci xolam bilu koy naqadi wala nga koy jéem a lor ci liggéeyam wala nga koy jéem a arrêté ci lu mu a am wala nga di ko jéem a xeex yow bindoo ko yàlla mooy ko bind bàyyi nee na man bi ma demee ba xam ne yàllaa xamee mbir yi lu neex mooma lu naqadi moom la man faaleetuma dégg nga ida kaanat il aqdaaru min maliki l mulki fa siyaana indi maa yasurru maa yabki ndegam dogal yëpp ci yàlla lay jugee man ba ciy jooyloo ak bi ciy reeloo ñooyam ci man di waaye koo xam ne xol bi dafa xat dafa yomb am stress lu ne xëfër mu yaakaar ne nit ñaa def kooku dafa yomba am problème yal na yàlla musal ci loolu dégg nga Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu Seydi Ali mu ne ku bëri njëriñ la ci mbindeef yi boromam bi mbindeef yooyu nag mu ne an naatiq yii wax min ha ci mbindeef wal jaamit ak yi nga xam ne dañoo tekkaaral yi tekkaaral mooy lan mooy comme miir yeeg xeer yeeg yónni xam nga yooyu da nga yow li nga gis mooy ne yooyu dañoo tekkaaral kanaa xamoon Cheikh Ibrahima dane soppandi ci yooyu gisoo ki feebaroon bàyyi jël kooku bopp bee doon métti bàyyi jël bopp bi dóor ko ci miir bi ci dafa dafa def soppandi ci diggante bopp beeg miir bi xam nga bu fekkoon ne bopp bi lay utiliser pour mu sedd du ko dóor ci miir bi mais miir bi lay utiliser ci bopp bi pour bopp bi mën a sedd kon jaamit yi sax Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ndeysaan fexe na ba jëriñ leen mu ne falaaye fii du mën a doy de bihaa ci expliquer loolu alqalamu big muy pen wala lisaanu ak làmmiñ nit mënta bind téere di dajale ba mën a wax mbaax ak bàyyi ci mbindéef yi nit mënta def ay conférence ba leeral mbaax ak Cheikh Ibrahima radiallahu ci mbindéef kenn mënu ko mu ne waqat radaata namp na sadiyal fadli ween waa moom weenu ngëneel la bàyyi dafa nampu weenu ngëneel buñ ne diw dafa nampu weenu ngëneel mooy kii li baax ci moom da koo doon ndax waxoon na ko Cheikh Ahmad Sukayri ci Cheikh Ahmad Sukayri daf ko ne ko man de yëg naa ci péeb yàlla ba ne alaaji ibrahima mboolem loo way yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam accordé nañ ko ci péeba léegi nag dama bëggoon sa way yi nga dima ci tuddaale pour péeb yàlla ba ñun ñu accordé man ñu accordé ma ndax koo ci tudd rek ñu accordé ko mu ne ko su fekkoon ne sama way yii danaa am kenn ku ma ciy tudd sama baay moo ci gën a xeey ndax mbaax gu ma am rek ci moom la jóge radiyallahu taala anhu Baye dafa xàmme te amul complexe Baye amul complexe mu ne Baye namp na weenu ngëneel wal adabi ak weenu teggiin Baye dafa am teggiin xoolal maqaamam mi ko yàlla jox ta xoolal maqaamam mi mu daan wàcce daleel ci magam Mawlaay Cheikh Mouhamadul Khalifa xoolal li ko Baye daan wax Baye daf ne dégg nga ko yaay jurub ku ëpp xam-xam Mawlaana Cheikh Mouhamadul Khalifa Niass. mu ne te ki ko yar mooy bàyyam alxaaji abdallahi lu ne wax na ko ci alxaaji Mouhamadul Khalifa moom cheikhul islam Maolana alaaji Ibrahima Niass te moom xam na maqaama mi ko yàlla may jugal foofu nga dem ci ki nga xam ne mooy xalifa Seydi Ahmad Tijaani dégg nga ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh Tijaani moom nax ma ne xoolal rek exemple Cheikh euh, Khalifa Cheikh Tidiane Mawlana Cheikh Alhaaji Ahmad Ibn Ayaasi Sukayrij xoolal li ko Baay wax Sukayrijul xarmu sirrul xatmi man xadaat lahul maali fa yaalu kulla man xaak xoolal lim ko ràngal ah bi mu egsee rek dafa ne ma kuntu ta'maluhu haada hu bushraaka haada xalifatu qutbil kawni li ma doon mébét de mi ngi xalifab xutbub jamono jàngi te wóor na bàyyi ne ko moom mooy xalifab Cheikh Tidiane lu tax mu doon rangal loolu Cheikh Ahmad Sukayri mooy tawaaduu ak ëdëb yar waaye da nga gis taalibe bàyyi boo xam ne doomi bàyyi dafay mën a toog muy sàllartiku ci kanamam sax dégg nga ko dem ba yow yaakaar ne doomi bàyyi ordinaire la nit la comme yow taalibu bàyyi la comme yow waaye am na ñu bëri loolu lañ jàpp di jàpp ne doomi bàyyi taalibu bàyyi la ko yow nit la comme yow ñu bëri loolu lañ jàpp tarxiis gi gën a rëy ci faydu mooy loolu dégg ko léegoo-léeg nga wàjji ndem sax ba yaakaar ne yaa ko raw dem ba yaakaar ne yaa ko raw dégg nga ko maa ngi jégalu ci baat bi ma nar a wax waaye jàngale la ndax bàyyi ñàkk na bopp ñàkk bopp gu toll ni di defar doomi jàmbur yi bàyyi njabootam gi xel waru ci egg sax kon teggihin nañ ko jàngee ci bàyyi mu ne dafa namp weenu teggihin wal ijtihaad ak góorgóorlu fi talabi ridal mawla ci sàkku ngërmandel yàlla alxannaan mi aji lawat almannaan may aji xéwale dégg nga bàyyi ku góorgóorlu la ci sàkku ngërëmal yàlla nekkut ne rek dafa ne lay ne cëp dafa def lu ne nettali na lettre bi nga xam ne Mawalaaji Abdoulaye moom la mujj liggéeyloo Mawlaana Cheikh Ibrahim tool boo xam ne ña ko daan bay lum tuuti tuuti mat nañ juróom fukki nit te mënuñoo woon xëy benn bés jeexal ko bàyyi moom bàyyam bàyyiloo ko ko liggéeyloo ko ko mu jeexal ko ci benn bés dégg nga ko te wax na ne moom taalibe baayam la woon ku dëggu woon ci ak taalibe yaa am yooyu yëpp ay njàngat mu ci yaa ngi dégg mu ne la wa muwaasaatul masaakiin ak di xemoog wa ñàkk yi miskin yi foo fekk Cheikh Ibrahima moo tax wax na la ko ca Rihla ba nafsul muluki xaalatal miskini lakin na nii ashku li man yushkini man de bakkanab buur la amee waaye xaalab baadolo laame amee bakkanab buur bi mooy lan mooy nag ah du fi nekk nag di gis ganaar yi nit ñi di ko njoñ mu ne man jox leen ma dabaraat gi wala jox leen ma sombi bi déedéet la gën a neex moom la Cheikh Ibrahima di lekk lal ya gën a nooy fa la Cheikh Ibrahima di tëdd oto ya gën a neex moom la bàyyi di war moo tax mu ne la nafsul muluuki xaalatal miskiini mooy ne boo jaxasoog moom da nga xam ne ab saalum saalum la radiyallahu anhu benn mag wax na ne fekk na ko néegam muy wax téléphone mu ne xawma ku bàyyi di waxoon waaye mi ngi ko dégg mu naan ko man nag saalum saalum laa te saalum saalum ñu ngi ko bind ci selima selima ji firi ci na mucc na xam ne Cheikh Ibrahim kon lim do da koy puuku rewoo bu demee ba fa adduna am amu complexe pour wax leen ne man ab saalum saalum laa amu ci benn problème yaa ngi dégg kon pour am ak miskin yi wal fuqara ak way ñàkk ñi wa zaman yi ak ñi nga xam ne jamono daal daf leen a jàpp ñoom Cheikh Ibrahima bu nekkee ñoom rek da ngay gis ne Baye dafa doon yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama pour de émoo gaa ñi nga xam ne seeni wàccuwaay wàccuwaay way ñàkk lañu noonu la Baye daan def radiyallahu sallam ñoom Abu Jahl mas nañ koo wax ne ko soo bëggee ñu gëm la foog nga wàccee sa bopp nga nga nga bàyyi way ñàkki ñii ngay toogat ñoom Bilaal ak ñoom Ammaar ñoom gaa yi ñoom dégg ko Abi Hurayra gaa nga xam ne muñ dara doo da ngay bàyyi toog ak ñoom ba yonentu bëgg gum bëgg kilifaay màkk yooyu tuub dugg ci diine islam tax na xelam nekk ci wala boog muy jàngale ndax noonu la ko taarix nettale yonentu bëgg koo def alquran wax ak moom ne ko déedéet bu ko def ndax ñii liñ lay waxit boo leen fekk see ci loolu duñ ko def yaa ngi dégg kon Cheikh Ibrahima looloo tax moom dafa daan emaag sax ñi nga xam ne jamono daf leen a jàpp dégg nga mu ne fa shabba mu daal di màgg ala xubbi dalika rida ci bëgg nàmp googu léegi nag waa ji lu mu namp rek loolu lay gàll xata taara ba naaw situhu jikkoom ya wa shaa daal di siiw dikruhu turam moom alaaji ibrahima fil afaq ci gox yëpp turu baay dafa siiw Oustaz Baram Diop bu ko waxaan daf daan wax mu ne taalibe bu ndaw bi sax siiwee na siiwaale na ci bàyyi siiwam gi moo ko waxal boppam wala abdou zabuli bi shuhratin xashi min makri rabbi li zalika yaxtashi aw li zaka yaxtashi bi yàlla ka natt mu siiw loolu tax mu ragal pexe borom moom ku siiw da ngay bàyyi xel sa bopp yaa ngi dégg olof yi sax dañ daan wax ñu ne siiw du jàmmi boromam dégg loolu nag waxee la moo tax Cheikh Ibrahima ne looloo tax ma ragal sama pexe borom dégg nga parce que fu ma rek ñu ne waa jàng nañ nga kon Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mu ne xatta taara situhu wa shaa dikruhu fi l afaq waqad arasat te sax na indahu fa moom raayaatu sabti darapo yi jiitu yi fii daalika ci loolu kulluhu lépp kullihi lépp bila nizain ci lu amu benn xëccoo wala shiqaaqin ak lu amul benn werante mboolem teraanga yuñ la fi tuddal bàyyi moo enu dara bi njub demal fële xam nga waxoon na la ne dafa nàmp dégg nga dafa nàmp weenu ngëneel euh, weenu ngëneel wàllu ngëneel boo demee ci bàyyi amu ci kem ëdëb amu ci kem góorgóorlu amu ci kem kawel itte ba buy wax di faral di xiir taalibe yi ne kawe leen seen itte xam nga bu ma nee wax maam Cheikh Omar Touré ne ko toogal danaa fexe ba li ma xam yëpp nga xam ko kooku dafay daf lay daf lay jox itte rek waaye xam ngeen ne lim xam kenn du ko xam radiallahu taala anhu dégg mu ne woo maa daala mësta dañ moom alaaji ibrahima maanihal fadaili di aji maye ngëneel yi bàyyi mayekatu ngëneel la wa mutil minani di aji joxe xéewal yi lii ku dund ak moom ci zahir ak ku dund ak moom ci baatin yëpp mën nañ koo xam mën nga ku ne mën na ko àtteel boppam taaliba bàyyi boo dajet mën na laa wax ne li ma bàyyi defal kon buñ ne la mayekatu ngëneel la joxekatu xéewal la yow loolu wóor na la yow mi may dégg wóor na la yow boo tëjoo seen danga xam li ñuy wax dëgg la yaa ngi dégg mu ne wal fawaadili ak yu gën yi yu gën yi mooy lan mooy lépp lu nit di puukaree xoo bu ko taalibe baay amee nu gën a rafet la koy amee xee xirli a saxban fadala wa xirli wala yeeku xisulu diini xadda muhibbina bali lubba lubba lubbi mada ataa yi moo tax lum am rek na koy téye bu bokk ak na ko beneen waaye téye da gis waa joo xam ne amul dara dafay ñàkk comme mel ne Ahmad Dame ñi soo ko gisee da nga xam ne kii dafa ñàkk waaye da nga gis benn Papa Naziru xamul dara boo demee këram ganaar lay xañee nga fa ne kii ñàkkul dara lan moo ko waral mooy taalibu bàyyi la du méttitlu ak ñàkk yaa ngi dégg boo waxee rek ndeysaan moom mooy loolu sama bàyyi Cheikh Mahamadul Mourtada Niass papaay papa Habib Cheikh Habib Niass ndax ma ko mos a wax bu leen bokk mukk ci ñuy dëkk bi neexut nekk leen seen laazim yeeg seen wazifa yi rek te ngeen taqoo xasbalaa ak lkasi yàlla noo doxal lépp yal na yàlla fayal ñu ko ndax kàddu googu mu ko waxee dafa am lu mu def yaa ngi dégg mu nekkoon cheikh ibrahima radiallahu anhu wa mutil minani wal fawadili fi kulli aanin ci bépp jamono wa zamanin ak jamono ba tey aan jamono la fi lay firi zaman jamono lay firi dégg ko mu ne wa sawaakibu afdalihi baagi ngëneelam yi sa waay mooy fi muy fi muy sennalee ngëneelam yi ba yi mu ko duy di ko di ko di ko sennal wujuudi yi ak tabeem gi wa ixsaani yi ak rafetam yi muy maye mu ne aadiya dégg nga ko lu miin fam ne la maanaam baax la baax la Cheikh Ibrahima noonu la mel maanaam boo ne aadiya naturel la bu la nee nga ne aadiya naturel la is dégg nga ko loolu naturel la Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dégg mu ne raiha lu boy la ila kulli makaanin maanaam lu lu tasaaroo la xam nga raixa rai riix mooy ngelaw bu ñu la raixa ni ngelaw di tasaarooxee mbaaxug Cheikh Ibrahima bi loolee radiyallahu taala moo tax mu ne la raixa lu tasaaroo la ila kulli makaanin jëm ci bépp place wabil jumali simba mbëstandaal Seydi Ali mu ne maanaam li may wax di ko tasaare mu ne ci gàttal ubil jumali ci gàttal fa fadailuhu ngëneeli baay laa tox saa takeefu ko wala yaati te dikkee fut biha ci ngëneeli baay al istiqsa ak takk waqad qasurat ak gàtt na gàttañ lu na bokk an istifaa'i mahaasinihi ci matal way rafetam al arqaamu nomba yi nomba si numéro yi bàyyi def nangam lu rafet bindal one un moo defaat le bindal deux moo defaat le bindal trois mille million milliard bindal numéro yi danañ jeex te yu rafet yi bàyyi def du jeex chiffres yi du jeex moo tax mu ne la wa qad qasura an istifai maxaasinihi al arqam walaw takassarat donte dammu na fil kawaaxidi ci kaw këhit yi ñuy bindee jamiil aqlaami mbooleem bit yi ñuy bindee pour nga binde tabee Cheikh Ibrahima ak ay rafetam big yëpp danañ damm këhit yëpp danañ jeex te liggéey ngay bind du sotti dégg nga nu ko yàlla waxee ci alquran dégg nga law kaana albaxru midaadan li kalimaati rabbihi la nafida albaxru qabla an tanfada kalimaatu rabbihi walaw jinaa bi mislihi madadan loolu dégg nga ko bàyyi rek nga koy déggee radiallahu anhu mu ne dégg nga wa amma jawdatu dégg nga wa amma jawdatu nadmihi ndax ndaal taaral gi muy taaral nose gi muy faral di nose maanaam ni muy taalifee li muy taalife bàyyi borom xam-xam buy taalif bu gisee mbind Cheikh Ibrahima rek dana xam ne dooragu même ñiy jàng yéneen téere yi te bokkuñ ci Cheikh Ibrahima buñ gisee li bàyyi di bi day dégg ñu ne la man ni bàyyi des di waaye arab daf maa neex loolu la gars di wax saraxatan nii dégg ko jaaxal leen lool luxa yi muy wax mën naa oyof sax duñ ko xam man benn waaye wax na ma fii ne ma dafa nekkoon Algérie di jàng benn baati arab la wax ci seen biir classe bi oustaz bi di jàngal naar moo ne ko baat boobu amul ci te bàyyi baat ko bind ci téere bi mooy xat sërtu jeelama mu ne ko amul ci amul ci amul ci arab déggal loolu kooku dégg na arab yaa ngi dégg mu ne wa amma jawdatu taarak nose mi muy nose way wa nasrihi ak wesar gi muy wesar wa maa lahu ak li ñeexal bàyyi min ajnaasil badii si jinaasa bi muy def ci jinaasaat yu yéeme yi jinaasa mooy di niirale bayit yi wal bayaan maanaam wala nga ne ci jinaas yi muy def ci badiu wàllu xam-xam la wal bayaan ak li muy def ci wàllu bayaan lu xat lu mu jël yaatal ko ba mën a dégg wa fasahatul qalami ak fasaha ak big bi muy bindee wa lisaani ak làmmañ loolu daal faqat qasara gàttañ lu na anhu ci moom saxbaanun saxbaan wa xasaanun ak xasaan ñaar ñii ay waykat lañ ñoo xam ne kenn xamut seen kem ci mën a woy dégg nga mu ne nag wala la ñeel na Cheikh Ibrahim taalifun ay téere ay taalifa adiida yu limu yu bari wa taqaarir ak ay lettre taqaarir mooy day toog rek xam nga léeg-léeg nga gi hee eh, Cheikh Ibrahim mbindam mi dëng na mbindam mi lii amul jot day jël kayit gi rek jël pen bi ne nii tar teg dégg nga léegoo léegi nga wax benn bayit ñu ne la ban téere la ne fekk nekk ci téere Cheikh Ibrahima mooy toog rek sànni benn ña ko fekkoon bind denc yooyu mooy taqaarir yaa ngi dégg kasiira yu bari wa ujuba ak wa ujubatun ak ay tontu mu fiidatun yu bari njëriñ ay tontu yu bari njëriñ waxoon na seen dëkkandoor bi góor googu dëkkoon ci seen dëkk ba du mu ko tudd dégg nga ko ndeysaan ne ko man nag li nga bind maanaam bu ma ci gisoon njëriñ danaa la tontu ndax bu fekkoon da ngaa xamut di laaj bu ma la tontoo njëriñ feeñ dégg nga ko waaye yow laajoo dangay ngay xàtte moo tax du ma wax dara mu daal jox nag ñoom ndigal ñoom Seydi Ali Cissé gaa yëpp ndeysaan tontu ko waaye maam Mouhamed Zeynab moom mooy yóbbante woon gaa yi ne leen su ngeen dee wax leen ko ne ko man alaaji Mod Zeynabu ci taalibi Seydi Ibrahima laa bokk xam na ma ci xam-xam yebut ma wax leen ko loolu rek noppi man du ma ko tontu man yaa ngi dégg kon Cheikh Ibrahima mu ne ujubatun ak ay tontu yi muy faral di def mufidatun yu yu yu am njëriñ te boo ko bëggee xam xoolal ñi ñi laaloon ñi laaloon Mawlana Alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu bi mu ñëwee ni muy faral di tàmbalee téeréem sax tàmbalee wu ko keroog bu mu ñëwee alhamdulilahi dégg nga ko euh, alayhisalaam boo baax xaw ma naka la ko waxeeti euh, way wa dama koy fàtte euh, wa baadu fal maqsuudu bi hada nazmi takzibi kulli muftarin la imi wax wax yu doy war ndeysaan moom cheikh al islam yal na yàlla fayal ni yaa ngi dégg mu ne wa taqaayidu wa taqaayidun ak ay tënk muqniatun yu doy yoo xam ne waaye dajale lañu li maftaraqa ca la taqali ko woon na min nusuusil a'immati ci cosaani waxi njiit yu njëkk ya alhudaat ñay way juble assuraat ñay sang asqaat ñi nga xam ne ay delluwaay yu wóor lañ dégg nga ko Cheikh Ibrahima yim taalif dégg nga ko maara la yàlla xam doy mu ne la nag léegi si daal yi nag radiallahu anhu bëgg laa limal lenn ci taalifi Cheikh Ibrahima xam naa moom la ñuy wax rek dégg nga ko su ko defee ñu daal di arrêté ndax mu ne bàyyi téere bii ñuy wax fa min taalif yi bokk na ci lim taalif kashfil ilbaas moom lañ tiim an faydatil xatmi abil abbas benn maa tazili yi ànd ak tazilam bi dégg nga ko naa bokk na sama masaratul jamii fi masaili wa minha bokk na sa alxamrul xalaal fi maxsidi rijaal wa minha bokk na sa taysirul wusul ila xadrati rasul wa minha bokk na sa tiibul anfaas fi madaihi lxatmi abil abbas wa minha bokk na sa rawdul muhibbina fi madxi saydil aarifina wa minha bokk na ca annuuru rabbaani fi madxi sayidi ahmad tijaani wa minha bokk na ca ruhul adab lima xawaa min xikamin wa adab wa minha bokk na sa nuurul basar fi madxi saydil bashar yoonuha bokk na sa sirrul akbar wal kibritul ahmar yoonuha bokk na sa tuhfatul atfal fi haqaiqil afaal fi sarf ومنها بقنس الفيض الأحمدي في المولد المحمدي ومنها بقنس تبصرة الأنام في جواز رؤية الباري في اليقظة والمنام ومنها بقنس روح الحب في مدح القلب يلا مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه تالف lu tuuti la ci Seydi Ali lim waaye lim taalif kenn mënu koo lim dénk ko ci kayit ba la may ñu dégg dafal ñu topp lu ci leer ci moom mi waxee ci làmmañi la jiitu ci nopp li ci dëndam ñu doon jéem a jottali la tafasaawuñ in uridu illa al islaha ma stataatu ma tawfiqi illa billah seen mbokk Ahmad Dame ñu la Sénégal bi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu daayiratul fadli war ngay sant yàlla ñun lañ sigil kese loo doon si di baram